Sebagai baju bersihkan Dokter Kanya roga bisa pakai Baju bersihkan Kanya roga bisa pakai Baju bersihkan Dokter Kanya roga bisa pakai Baju bersihkan Kanya Kabino bage maji wo kosi kabona ma laita bere jamaya ralaya narongere acca gaay final poids léger ak bu ta sifflé ya diggante Babou Zac Diof Yoor ak Babou Soudiane Fimela Babou Soudiane moo ñu woon gannaaw ah moo yor ngeen mën Lagos li ngeen bëgg lu muus gën a gàtt moo gën a waaw baabu saak joof yoog ak baabu suujan ñaari baabu la waaw waaw beneen côté bi ngañ seen mooy bëgg noonu ak daam seen ah ngañ seen moo ko ndam eh ngañ seen yëkkati lan doole ak seen daal